lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew waaye nga te nga te forox nga te foog yàlla na fi des yàllal yàlla barke soxna jaara président def ñu fi yebal euh, ñu ànd fi ak délégation bu am solo ñëw teewal ko ci bés bi muy màggalu Poroxaan euh, muy màggalu soxna maam Jaara Bousso mi nga xam ne bi mooy waajuru Sëriñ Tuuba euh, président bi ñuy ñëw mu yebal ñu ne bu ñu ñëwee ñu gërëmal ko sëriñ bi sant ko ndax kenn ku ci nekk Euh, fàttali na ko ndax yàggul lool euh, li nga xam ne lii moom la sëriñ bi waxoon président ne ko dama laa amel bor dama lay booleeg sëriñ Touba mu fayal ma la kon buñ génnee ci élection yi président am ci ndam bi mu am euh, jaatu na mu dellusiwaat ci moom ne ko ñaan gi nga ñaan noonu nangu na ñaanalaat ñu lii nga xam ne lii ñu ngi koy jub dëgmal muy juróomi at yii di ñëw président falawaat ci Sénégal mu amee ko ci jàmm ci lu ko jik moom ak njabootam jik yëpp waa Sénégal donc loolu moo doon solo si tànk tànk yi tax ñu ñëw euh, profité également ci occasion bi waxaat sëriñ ne ko président am na liggéey yoo xam ne yii sumbuloo nañu ko fii ci dëkk bi muy liggéey yu jëm ci euh, cité religieuse yi euh, te Porokhane desul ginnaaw muy wàll wu jëm ci salle de conférence parce que fii kenn ku ne xam na ne mbiru daara am na fi solo ndax euh, daara yi nga xam ne waa kër maam Jaara Bousso turandoom yee fi nekk te waxoon naa ko fi daaw lu mat junni ndongo nekk fi euh, bariwul lu nga koy gis donc am na euh, ouvrage yu am solo yoo xam ne soxla nañ ko am na esplanade bu ñu fi def am na également liggéey yoo xam ne tàmbali nañ ko fi depuis daaw pour ñu mën a jéggi xur wi Euh, loolu lépp muy liggéey yoo xam ne benn bu nekk mi ngi avancé ñu ñaan yàlla ñaan wax sëñ bi mu ñaanal président mu yeggale liggéey boobu rawatina liggéey yi nga xam ne aussi day tax sax ñu mën a jot si fii ci Porokhane te yaakaar naa ne ku fi ñëw ren xam ne ñëw bi gën a yomb kon loolu moo doon li nga xam ne lii moo doon kàddu gi sëriñ bi dégg na ko euh, defal na ñaan président te am nañ yaakaar ne ñaan yi la woon bii tamit dina ko nangoo. soxna jaara soxna na soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tey du ñu beew waayi nga te waayi nga te forox nga te foo nga jelu na fi des yàllal yow a yàlla jox barke soxna jaara